ba tey ci seen scandale du jour nañ dem seetaani vidéo bi ñëwaat. Sénégalais yëpp ñu ngi interpole di taaxiru réaction wu société civile ku ci mel ne Moundiaye Cissé bu ONG 3D ku ci mël ne Birahim Seck Forum Civil ku ci mël ne Alioune ku ci mël ne professeur kër Gueye. ak Babacar Ba di forum du justiciable pour que ñu wax ci mbirum corruption bi nga xamante ni ne député waa PDS moom lañu teg ci ndoddu ay membre yu conseil constitutionnel mu nekk mbir mu garaaw ñoom nag dañu xam ne ci seen liggéey ci lutte contre la corruption la ci bokk gannaaw ba ñu tegee commission enquête parlementaire bu war a topp mbir mi te sénégalais yi fàttewuñu ne rapport cour des comptes ci gestion covid bi bi mu génnee ñoom ñëpp amul kenn ku xamante ni ne waxu si moo tax sénégalais yëpp di xaar seen réaction ndax fu mu nekk nii ñu ngi dund li ñuy wax crise institutionnelle te fa mu nar a jëm ci réew mi baaxul ñëpp nag ñu leen di xaar

no, no, no. Yon li ke te li ki fi waj, mwen ti nyan mwen pou le.